ginnaaw amagul lu faat ñu faagaru toog kër ga ñun ko ci deb ba mu feeñoo ba léegi ci doxteelu weer bi ñu nekk bey nañ ci suñu waax def nañ ci def nañ ci suñu kéemtalaay kàttan xale yi parents d'élèves yi

ay jumtukaay yu bëree bare moo xam ci xaalis la moo xam ci leneen la matuwaay yi nga xam ne fajkat yi moom la ñuy soxla moo tax ñun tamit euh, am na lu astuut boo xam ne def nañ ko ca mu nekkoon suñu contribution. Chers élèves, le monde est en guerre contre une pandémie, le Covid-19. Mobilisons-nous, faisons face. Vous devez vous informer pour informer votre entourage, vos amis, vos parents sur les attitudes élémentaires d'hygiène à prendre pour la prévenir. Chers élèves, l'heure n'est plus à l'errance, l'heure n'est plus à l'oisivité, mais à la recherche de l'information. Car quelque part, chercher, c'est apprendre. Sénégal wolof ku bala nga lakkale li ñuy ñaan wayjuri ñom ñoy ñu daldi wax seeni doom ñu tok ci kër gi fexé ba ñuy neu seeni leçon ci biir kër gi di leen jangal nan lañuy raxaso lu mu neew néew fanweeri seconde wañi nuyo bi moytu rassemblement yi ci biir kër gi lolu mom mo ñuy ar ci coronavirus feebar bu bes bi ñew ci aduna muy coronavirus ah, laaj na kat wax deug yalla

ndax ñom ñoy yaakaaru suba ñoo wara porter développement réew mi. du jaaré ci man tok ci kër gi jang ci kër gi mucc ci corona. stop Covid 19 je reste chez moi et j'apprends à la maison.